salaamaaleykum Sénégal man la Beydi bi bu bees yaa ngi ci émission ndekki lii ak maam Nicolas jërëjëf. Euh, Mbacké Sylla dirait une fois n'est pas coutume la une de Sud Quotidien de ce euh, mardi 21 mai 2024, justement, puisque j'en parlais à l'instant, changement de comportement pour la et la justice, solidarité dans le respect, la dignité, l'homélie de Popongine, ainsi, euh, ñu gis photo, euh, euh, monseigneur, ci une Sud Quotidien, machallah xam nga Sud Quotidien dafay yéenekaay boo xam ne nekkul ci ay détails yu yu amul euh, amul bopp amul genn mm. moo tax itam ci unam tey mu bind faire de l'agriculture le fer de lance de l'économie Diomaye livre sa priorité ndax euh, président jomay Faye mu nga woon ca Fiara bu ñii di wax ñii di liggéey boobee jamono euh, euh, jeudi ou vendredi amoon nañu fi gan mu ñëw fii euh, oustaz Maodo Faye di monsieur Jean-Luc Mélenchon jiite parti bu mag foofee ca France doon it xaritu suñu premier ministre bu baax te firndeel nañu ko muy monsieur Ousmane Sonko. Euh, PM dalal ko ñu def conférence ca UCAD muy conférence bu am solo ñu waxtaanee sujet yu bëri sujet bi euh, gën a intérêt am na ku ma ne yéen sujet bi intéressé na la <laughs> te te ivoirien la le sujet là vous intéresse beaucoup les sénégalais euh, sujet boobu la ñu capté alors que sujet yu bëri divers la ñu <laughs> ñu waxtaanee yu amal maanaa sax Afrique ak rawatina sunu ay relation sunu diggante ak Occident ak yu ni mel mais sujet bi nga xam ne ci la ñu taxaw boobu ak léegi <laughs> xam naa ñu waxati ci rek xanaa oustaz. Euh, Ousmane Sonko ak euh, déclaration am foofee ca UCAD euh, doon sujet d'actualité naka nga ko jàngatee. voilà xam nga <coughs> xam nga Sénégal moom ndeysaan dañoo tàmm loo xam li walla ñun ñëpp nag <coughs> dañ koy faral di def mooy kilifa day jël kàddu wax téeméeri baat yu baax. Mm. am bu nekk ci biir bu xawal na ñu coppati boobu bàyyi la ci des lépp. Mm. Palestine gee ñuy rey nit ñi ay jullit di fa faatu Ousmane Sonko jour boobu wax na ci. déggoo benn jullit bu ci wax. Hmm. te pourtant wax na ci. Hmm. te mu ngi ci kàddu yam ci wax kàddu yu baax la yu dëgër la hmm. ak position bi ci Sénégal am ak li mu ci war a taxawee gisoo benn boroom xam-xam bu wax loola. li ñuy wax kay mooy lu tax mu naan dañoo tolloore wàllu góor jigéen. te sax waxeen bi dañ ko war a dégg ci ay façon yu bëree bëri. tolloore gi waxul ne man ak Mbàkke Sylla ak nangam suñu yoon déedéet république bi moo ko tolloore. parce que boo fi reyee léegi kenn ci ci ñoom. ñu yóbbu la ci kaso bi kon loolu tolérance mais président Macky Sall ban ko ko laajee defe ne ñun loolu duñ ko mës a def ci àddina waaye nag ku génn ci mbedd mi def say kii ba gars yi dóor dóor laa yu demee noonu kooku yow la ak peuple bi. Serigne Mbacké si waaw lu jaxasoo la de vraiment xam naa ni mélange wu tudd moo tax affaire yi mélangé wu ba nga xam ne. Euh, yow moom del nekkal fii rek di wax sa wax yi. non tuddul mélangeon de mélangeon. waaw mais da ciy déggee lu mélangé wu parce que dañ naan nangam mélangé ko ba mu mélangé moo tax yëf fii dafa mujj mélangé wu ba nga xamante ne doo xamante noo koy noo koy noo koy décortiquer parce que ñaar nag mooy am mooy lim fa li fa président Ousmane ko wax Euh, dëgg la am na ci wax yoo xam ne wax yu am solo la comme ni ngeen ko waxee léegi Maodo waxee ko noonu jëm ci ay position yoo xamante ne jaadu woon nañu saluer ko mm. léegi wax yam fa wax yépp ni muy am am am solo doon ay position yu am solo yoo xamante ne tey bu ñu ko làkkoon mm-hmm. yu taxaw yu demee noonu mm-hmm. euh, point bu ndaw boobu nga xam ne dañ koo wax ba noppi wax ko ci làkk wuñ déggut mm-hmm. nga xam ne dañuy soxlawaat ñu tekki laatal ñu ko traduire laatal ñu ko defalaatal ñu ko loolu day bokk ci li nga xamante ne day ruube la jiitu woon lépp ku ne xam na ne bu mii sama sama mi ni mel nii lépp mën naa am luñ ciy wax du ci am waaye bu amoon benn toq ñuul ñuul bu ci taq boo moytu toq ñuul ñuul boobu la ñu daal di commenter euh, la ñu commencé di commentaire mm. ak di ci wax yi nga xam ne moom lañ ciy wax léegi ñaari yëfu laa ciy xalaat man di ko ci xool mooy gan gi ñëwoon euh, Sénégal seet si leen mm. euh, nga xamante ne ganu parti politique la mm. ñu jël ndaje mi defee ko biir université ndax loolu rupture la wala déet ndax bu fekkonte ne tey par exemple dañoo an yeer montre bi mu mel ne président Macky Sall moo fi nekk Ousmane Sonko ak partem nekk ci opposition est-ce que bu ñu amee Mélenchon mu ñëw fi euh, université la ñuy defee cérémonie bi wala dañuy tànt defee ko fa wala dañuy luye ay saal wala déet hmm. bu fekkente ne loolu amul nga xam ne doo lay yor pouvoir moo tax ñu mën a def loolu bu boobaa ndax loolu rupture la wala ndax lu war a am la am ba noppi. Hmm. loolu benn c'est pas une question de rupture Mbacké yow li ngay wax nii. doogu ma la de nga baal ma. Ah, non non non parce que non parce que ci loo xam li man am nga sa idée sa idée moom d'accord naa ci non non non am nga droit dama bëggoon man sañ-sañ bi nga am ba su may wax lépp lu la arrangé rek danga may dog non non fekkal am nga droit attention am nga droit il faut juste comprendre que conférence universitaire la. waaw c'est ça intellectuel daje fa ci ay étudiants nga mën a waxtaan. ala kulli xaal damay daaneel sama kàddu. mais parce que a wax nañ bàyyi mu. boo ko boo ko rupture la bon de ça est boobu mu ma jaaxal. non Maodo bu ma daaneel. aywa est-ce rupture la nit ñaa ngi ñuy déglu mooy est kon yow da ngaa question boobu te loolu nag c'est amul pourtant rupture moo fa amul problème parce que rupture entre système lañ ko mën a waxee. te lii nii problème intellectuel la problème bërëbu jàngkat la Mélenchon les insoumises de la France intellectuellement parlant il faut que les étudiants tamit ñu xam Sénégal xam ce qui se passe c'est tout. solo jërëjëf. Mhm. waa Mbacke ak. voilà léegi kon loolu li ci Maodo tontu baax na euh, peut-être li ma li ma doon xalaat ak di ko wax moo dëng ni mu ko jubbantee noonu mooy ni gën kon mm. euh, soxlawut affaire rupture affaire universitaire la. Mm. léegi lañ fa doon waxtaanee jëm ci mbirum góor jigéen dafa am euh, ay kuréel yoo xam ne dañoo taxawoon ci réew mi. Mm. Eh, ne loolu nañ ko jël criminaliser ko. Hmm. loolu bañ koy bañ ko waxee jël euh, procès bi di ko yóbbu ci ñi fi nekkoon ay député yi ñu koy signé. Hmm. yóbbuloon nañ ko ñu bari ñu joxe ci engagement ba yóbbuloon ko président Ousmane Sonko. Hmm. am ñu bari li ñu koy waxal mooy dañ ne Sonko dane woon bu faloo loolu lay njëkk a def ma ne leen loolu weesoogut ndax moom ba nëgë ni taxagut mu mu am majorité assemblée nationale. demaguñ ci ay élection ba mu am doole mën a jëf la mu waxoon wala mu bañ koo jëf. ñii génn tey Euh, ñu ci baree bari naan voilà Ousmane Sonko nee na nee na góor jigéen nangam nee na góor jigéen nangam ñooñu ñooñu lañ njëtoon procès de loi ñu jël ko dugal ko ci biir tiroir waxatuñu luñ ci jëm. nga ne ñii fii coow tey. ñii fii coow tey ñoom ñu jël dugal jël ñu jël dugal ci beneen bi ci des ñii fi coow tey ñu ci bari ci ñoom. ñoo doon wax naan ñii naan nañ criminaliser ak ngóor jigéen dañ koo bëgg a politiquer. est du ñoom itam tey dañ koo jël tey bëgg koo def mu nekk arme politique. Mm-hmm. boo xam ne dañ cee bëgg a jaboliser tey discours bi fi amoon wala ngan gi fi amoon yooyu ay question la yoo xamante ne mi ngi ci penc mi yu bari la yoo xamante ne nii borom xel yi ñi ngi xool ak a xalaat man jàpp naa ne amagut luñ ci mën a wax léegi toloore la wax Maodo firil na ma baat bi léegi bu fekkente ne république bi ci boppam moo am yu muy toloore ñun en tant que ay jullit xam na ne suñu république am na yu may dajal ci mbedd mi man bu fekkonte ne l'islam ak l'islam la dama naan wala nit ak nit damay taxaw faj ko mais ci ci tax na loolu mënuma koo def du man mais république bi la léegi nag hmm. buñ bëggee am nag procès de loi yoo xam dañ cay àgg buñ demee ba septembre assemblée bi jóge fi hmm. Ousmane Sonko ak partem yor yor majorité assemblée am lu ñu war a sensé am doolee sensé ko mhm. te sensé wuñ ko ñëw dëggal ko bu boobaa ñu mën a leen a wax lañ leen di wax waaye bu ñu àggagut ca loola mhm. àddu ci loolu dana doon loo xam ne lu jaxasoo lay loolu mhm. leneen li damay waxtaan ak benn kilifa mu ne ma oustaz Maodo Faye peut-être di nga di nga mën confirmer ki la bañ ki bañ ki bañ ngay jël exemple ci soo ko mu ne ki bañ dalay bañ rek loo mënte def ah bañeel ba lay gis maanaam ñi nga xam ne ñëpp mu ngi feeñ danoo bañ Ousmane Sonko démb ak bët ki démb. Mm-hmm. moo xam ci ay presse la moo xam ci ay chaîne de tele la moo xam ci ay journaux la moo xam ci ay journaliste la mm-hmm. moo xam ci ay politique la moo xam ci moo xam ci moo xam ci mm-hmm. ñooñu ba tey ñu ngi koy bañ te ñu ngi koy confirmer léegi dañuy ngoy ci loolu ngay wax noonu ci ay détails pour mën a wane seen mbañeel ci nit ki parce que ki la bañ dalay bañ rek absolument mais du tee nga doon ki nga doon parce ah, lii lii am ba am mooy lii histoire retenir mooy Ousmane Sonko mooy homme politique bi fi def ci li ñu li ñu suñu histoire woon yëpp lu kenn mës def te loolu histoire retenir na ko te du mës a dañ. Ah non man li mu fi def ci wàllu politique depuis 2014 ba 2006 ba niñ ko dàqee ci inspection wax naa ko ba tey ci samay ay yu bëree baree bari mm-hmm. ba ni mu fi nekkee député ak ni mu fi defee assemblée nationale voté fi jël fi troisième benn homme politique et surtout. combat bi mu mënee. Mhm. pour yee xale yi ba noppi na leen am nañ projet tel ba noppi taxaw ca jiitu leen ci. Mhm. ñu bari de këram yàq ak njabootam sosal ko. yaa def li waaw fàtte xaju fi li wolof di wax loolu lépp ñu dajaloo ko def ko ci nit mhm. tey jii gis nga fi ko yàlla moom fi ko fi ko yàlla teg ay boy yu bëri waaw ñu bëri faatu te léegi te nag faatu ga ba léegi mars 2021 ba léegi fi ñu toll faatu googa xaw ma nañ ko suulam dit mais loolu war nañ ko mën a leeral léegi yooyu Ousmane damaa waxoon ne dañ koo singali léegi singali gi nag dafa ànd ak bañeel goo xam ne gi gu avéré la ki bañ nag day dem ki la gà xanaa mën nit ki boo ko bañee da ngay gàtt xel ci moom ndax dootoo gis lu positif ci moom léegi sam xel day daal di muuru mais Ousmane Sonko ku ma mën a andil fu mu waxee ne dañ fay bëgg a légaliser góor jigéen waxu ko mosu ko wax Mélenchon ñëw na fi ba dem waxul lu demee ci lu mel noonu dem na ñëw na fi ba dem waxul sax ci loo xam ni dafa naan waaw nit ñi dañoo war a tolérer lii nangam tolérer gi le Sénégal Sénégal daf ko toléré nous sommes dans un pays laïque mais waxuñu ne comme ni ko Mbacke doon fàttaliwaate léegi askanu Sénégal toléré nañ ko parce que am na ñun doon dóor ñu ne waaw xanaa kon loolu toléré wuñ ko nangam ak nangam loolu ay li ñuy tuddee euh, ay ay ay ay ay benn ay individualité ay benn bennat la yoo xam te sax ña doon dóor kay bu dee dañ ko toléré kay kon buñ leen du buñ góor jigéen yooyu ngeen baal ma ba pare hmm. lu am na yu ñu rek ci réew mi te kenn du ci wax te loolu fi la ko Ousmane Sonko soo ko bëgg fi la koy bàyyi. Mhm. beneen bi ci tegu gis nga gis nga wax nekk ci politique. bu mu la tee nit ki loo ko bañ bañ bañ lëkk nga lu mu kii kii nga mën a nangu ne. ay ay noppam guddi na. Mhm. Ousmane Sonko c'est un fin politicien. il a le courage de mener un combat. fi ko yàlla teg tey jii c'est le chef du gouvernement te feeg juróomi at moom comme naqari sab xol dana dagg ndax feeg juróomi at moo fi ne. ah bon bu soobee yàlla te te ñoo ngi koy ñaanal mu ne fi. léegi loolu loolu loolu moom mooy am. léegi nag courage boo ko jëlee Sénégal xam nga loolu la jëkk a wax. Mm. dañ laa jox xaalis. Maodo Faye dañ laa kii man loolu dama koo dégg dégg dégg dégg ba doy na. Mm. saaga nañ ma ci yóbbu nañ ma ci fu ne mais man dëgg bu jotee. Mm. dama naan tëll wax ko bu Ousmane Sonko defoon safaat bi fii laay toog ko. waaye ne dangaa baax mu bañ la loo gën a baax mu lay gën a bañ hmm. ki nga xamante ne da ngaa jàmbaare tax mu bañ la loo gën a jàmbaare mu lay gën a bañ ki nga xam ne da ngaa jub mu bañ la loo gën a jub mu lay gën a bañ waaye nag wolof yi dafa am baat bu ñuy wax dañ naan sédd ma ci gaalu xaj waaye doo ma ca fekk maanaam da nga may wax ne cuune laa waaye du ma def yëfi cuune mukk hmm. da may wax ne ma àttanuñ nguur ay tappalekat lañ doo ma gis ci ak tappale mukk hmm. da nga ma li wax gëw ma ko euh, maanaam wax rek laa fi ba wax ji ànd ak jëf loolu message la boo xamante ne nii képp ko war a jàpp waaye ñi falu itam noonu lañ ko war a jàppee te itam loolu moo war a nekk seen seen i priorité mm. beneen bi ci def xam dëgg-dëgg lan mooy priorité bu sénégalais yi mm. di dóor foofu mm. leneen lu ñu def lu dul loolu rek maanaam coow lay indi ak ay débat yoo xamante ne ni daf ñuy tardeel te am na leneen loo xamante ne nii moo ñu gën a yitteel ngir ñu mën a avancer jëm ci kanam te alxuraan xam nga lu ñuy jàngaloon ñun bi lay julit lañ moo tax man man barke rasulaay jaaxle naa yàlla daf ñoo wax nañu su ngeen déglootee discours. ba discours bi jàll ba pare. seen yoon nekkul ci détails yi jël leen la ca gën a rafet. yàlla daal na ñooñu rek am xel. nga ne sunu borom nee na. moo alxuraan laa lay wax kay. bu discours amee. waaw jël leen ci la. la gën a rafet ca discours ba. Mm. la ahsan sax la wax. Mm. la ca des nag mooy rafet la ca gën a rafet. Mm. nee la ca des ngeen teg ko daanaka ñooñu rek ay urul albaab nag. ci jeexital aaya ba. mooy li nga doon wax daanaka yàllaay wax de. Mm-hmm. du waxee Maodo Faye. Mm-hmm. su ngeen déglootee discours ak fu discours ba mas a mën a amee. nee na fexe leen ba yéen seen yoon nekku ci ay nit yu baax ngeen. ah kuntum xayra ummatin uxrijat linaas. loolu la loolu la wax. xeet woon ngeen woo a